waa ju gàtt rek bi ñu nekkee si bureau bi le ministre dafa ñu woon nañu ñaan pour euh, raison yu bare bare mu tombe nag ni ñun mois de mars weeru ñaan la si la sunu maam sëñ Babacar génn àdduna le vingt cinq mars sunu maam Mansour génn àdduna le vingt neuf mars suñu baay Cheikh Ahmed Tidiane génn àdduna le 18 wala le 9 mars le 15 mars suñu bàjjen Oumou Kalsoum doomu sëñ Babacar génn àdduna mooy mois de mars suñu baay sëñ Moustapha dafa wax événement bi gën si kër si Hajj Mali bi nee na bi génn bi sëñ Babacar génn mars sëñ Mansour génn àdduna le 29 mars mu ngi def am essayé nañ leen teqale si wàllu zahir waaye yàlla boolewaat na leen si wàllu baatin mu jox nag ay ñaan li ma nekk Jadda Arabie Saoudite yëpp ñaan yooyu ñaan naka si kaaba su fekkee ni mois bii dafa ñëw ñaan yooyu la ñu bëgg a renouveler rek di ñaan yàlla li nga xam ni moom la ñu dëgg mën yal na si yàlla def barke. amiin yaa rabbi. wa qaraaya baabal xayri yaa rabbi lam yufit lisaaka sarafna naxwa baabika wijhati si jamono ju jafe jamono ju nga xam ne yii ñu ngi attaqué confrères yi di wax lu nekk waaye nag monsieur le ministre ñu bëggoon la remercier man je suis séduit c'est la deuxième fois bu ñëw mais le degré de professionnalisme des démembrements de l'État son développement de l'État man dans ma compréhension c'est tous les corps de métier yi nga xam ne ñoo fi teew seen professionnalisme ak li nga xam ni seen domaine la mais da ngay gis ni yàlla rek lañ siy wut te seen xol lañ koy def di la remercier si loolu parce que yaa nekk si bopp bi di remercier itam la stratégie cognitive du président ak yow sa stratégie cognitive fexe bali lii nga xam ni dafa si waa këru diine yi la nekk te ñoo yore éducation bi ngeen def si seen kéemtalaay kàttan pour que succès bi yëpp ñu am ko dama mas dem Liverpool si benn euh, conférence sur l'avenir de l'éducation j'étais le seul musulman mais il tous les pays du monde il y les États-Unis la Chine le Japon man je représenté benn organisation bu ñuy wax religion for peace bi ñu lan mooy avenir éducation ñu ni ñett bu njëkk bi mooy iman mooy nga am foi c'est des gens qui viennent tous de pays laïque man rek maa fi doon julli ñu ni bu njëkk bi mooy nga am foi beneen bi ngeen initier seen doon si affaire informatique ñetteel bi mooy mathématique

mën na ko paree na ko yàlla bu yaakaar tas asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh